euh, procès en appel du le silence de Sonko si agitant et perturbant procès bi. waaw waaw waa ji nag boo bëggee dégg-dëgg bu fekkente ne ci bataille communication rek la mën nañ ne jël na pay nag quand même. <laughs> man man Ousmane Sonko laa xalaat gis koo xamante ne boo noppee mu jur coow boo waxee mu jur coow waa ji daal lu mu def lu ne mu jur coow kenn mënul comprendre loolu loolu nag mooy bàyyi leen ak Papa Assane du dëgg waaw kay yal na ko yàlla defal mu boole ci muslaay bayre boo gis dee ànd ak muslaay balaa la daloon ji ndax ba ak muus ba woon man dal du ko dal du dëgg ndax euh, noppi gi itam c'est une stratégie de communication on l'a dit ici euh, wax ji itam bu jotee dana wax te ce qui est surprenant mooy ne à la veille presque de chaque euh, saa yu waree dem par exemple tribunal dañuy gis dafay def ay sorti yoo xamante ne de ci amaana mais bii yoon également silence mutus kenn xamul en fait il est terré dans son silence et silence boobu itam pour moom ça a une signification et réellement ça a une signification même pour le peuple et problème bi mooy ni nekk ci ne le naka la ñuy décrypter message Ousmane son bi le fait qu'il soit silencieux loolu itam maanaam question la euh, tout est dans l'art de pouvoir communiquer dafa am ay moments yoo xamante ne c'est fait pour ça y a des moments pour ne pas communiquer quand il s'agit de ce procès là nga xam ne c'est un procès en appel ni ko Pa Assane waxee mais dara xewul je ne vois pas où est le problème pourquoi secouer un un chat xaw ma nañ koy waxee xaw ma ko expression française bi di waxee mais dama xamul lan moo fi jar en fait tension bi yi nga xamante ne moom la ñu bëgg créer parce que réalité bëgg créer tension mooy indi nga ne ñii duñu circuler ñii duñu génn alors que dëkk bi dara xewul il se passe absolument rien njëkk nañu dem tribunal atte nanu bon ñi interjeté nañu appel mais dañuy demaat c'est soit décision bi dañu koy confirmer ou alors euh, dañuy utaat beneen décision judiciaire mais dans tous les cas et démb rek j'écoutais euh, l'émission de Baye Oumar sur Sud FM Objection avec euh, le grand expert en, euh, et juriste euh, Mamadou Salif Sané ñu ngi koy nuyu bu baax di ko di ko ziar muy expliquer ne procès en diffamation dëgg-dëgg nag joteewul dara ak éligibilité wu Ousmane Sonko bu dee ci wàllum droit te droit bi xanaa pas Assane droit bi bi bi bi Mamadou Salif Sané jàng xanaa du moom la ñëpp jàng nag yàq ay timulaana wa dafa am ay droit yu bëri ci réew mi. Ah, man de léegi dama naan nag yaa am problème déet. déet droit bi kat da ngay wax ku wax tey dangay gis ku wax tey lii. pare dem ñëwaat ne loolu mu waxoon noonu. non dafa changé selon le temps. <clears throat> mais mami li droit doon maye yëpp jamono ji ci réewum Sénégal dafa mel ni yëpp a changé parce que lépp lañ soppi. ba ci procès bi nga xamante ne mënoon nañ koo jàpp fii ak 30 jours. ñu jàpp ko ci 17 jours loolu mais loolu laa bëgg wax moo tax ma ne la xam na en fait le fait a susciter tension parce que ci li ñuy mën a mën a mën a jàpp lépp en tout cas mooy ne Ousmane Sonko il a il a un délai d'un mois pour que moom mu interjeter appel. donc à la jàpp bi ñuy jàpp date bi nii sax je me demande est-ce que waroon na parce que balaa moo doon am sens dëgg mu passé délai moom interjeté wul appel bu boobaa ñu mën a jublu ci dossier bi mais moom ba fu mu nekk nii am na droit interjeté appel délai bi ñu ko jox délai boobu dépassé gu ko il a un délai de 30 jours le gars ne s'est pas encore prononcé ses avocats ne se sont pas prononcés ñu ne dañoo jàppaat procès pour dem te taxawaat ci kanamu tribunal mu war a mën a tax nag ñu naan aujourd'hui lundi de tension ban tension lu xew mais dara xewul procès en diffamation boo xam ne ñun ñu ngi door a gis amende deux cent millions procès diffamation deux cent million quoi ñu ngi koy door a gis waaye amaan amaana am na man de fii ngeen di jaar di passé fii ngeen di jaar ba ne waa ji man mënul éligible loolu nag wax dëgg yàlla man boobu décision de justice laay toog nii di xaar ba xam ci ban fondement lay basé wu ndax yow man ak ngaa laa jote maag yow ñu dem tribunal waxal naa la nga ne li ma la waxal dëppawul ci dëgg ñu dem àtte nanu nee nañu finalement ah yow kat ngaa la yaa am dëgg yow mami yow yaa tooñ door nañ la deux mois sursis yow dul tëdd kaso teg amande nañ la deux cent millions lu nu mës ta gis waa nag waa dama ne non dama ne loolu yëpp nag tuwaarkaal la tuwaarkaal la mhm. bu dee yow yoon ngay bëgg rekk nag yow yoon nee na la yow yaa yaa yaa moomee fa luy problème bi je ne comprends pas ba nga ne nga ne bëgg nga kontaan nga ci li justice def waa bi jaar na yoon nga lendemain nga xëy suba changer sa veste mais bàyyil bàyyil keneen kii nga xamante ne moom itam am na délai wu 30 jours mu mën a xool ba xam ndax mom day day interjeté appel ou pas pourquoi être précipité ci dossier bi qu'est-ce qui justifie cette précipitation là dans tous les cas procès diffamation normalement warul am benn automatisme ak li nga xamante ne mooy xew ci ay affaire éligibilité ak ay droit électoral ak jootewul dara ça n'a absolument rien à voir donc nanu arrêté le fait que déjà ñu bëgg mettre nit ñi dans une préparer nu ci benn benn espèce de tension boo xamante ne pour moi qui est inexistante il a pas de tension dans ce pays les gens doivent pouvoir vaquer tranquillement à leurs occupations dem liggéey bu nu wàccee dem yi seen ay soxla tranquillement danoo nekk ci weeru koor nekk ci semaine boo xamante ne nit ñi xam nga lu nu tal sax nag korite gii lu nu mën a ñawalee seeni njaboot lu nu mën a togg ci seeni biiri kër ngir mën a sagal seen bopp comme dund nañu weer boo xamante ne am na noo xam ne yàkkamti nañu lool koor gi jeex ngaalakan gi bari na dépense koor gi metti na weeru koor gi tar na ci njaboot góor góorgóorlu bi kooku boo bëggee xëy ne réew mi kat dafa am lu fi xew procès dafa am mais procès rek dem wuy ji tribunal mais y a pas que Ousmane Sonko moo a dem tribunal tey y a les y a les euh, les députés yu nu war a àtte mais <laughs> Bassirou Diomaye du dañ ko war a defeere tamit tey mais lan moo xew pourquoi ñooñu dañu dañu dul ay sénégalais comme Ousmane Sonko mais ay sénégalais nañu comme yëpp ñi nga xamante ne dañoo nekk ci biir kaso yi boobu ba tey paasan bëgg ku leen àtte nag. ñooñu duñu ay sénégalais ñooñu mérité wuñu jugement mais ñooñu mérité nañu également ñu taxaw ci kanam mu yoon ñu àtte seeni mbir mu jeex longue tention préventive yi mais nekk ci benn nit rek bëgg koo def actualité bëgg noo fàtteloo yeneen question yi nga xamante ne ce sont les questions yi sénégalais yi war a jublu loolu nag mënuñu koo fàtte dafa am loo xamante naa ne amaana dañ koy tegandi wax ci li xew waaye bu ñu noppee dañuy waxaat ci li nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee ci réew mi Les gens sont préoccupés par autre chose Nabucco il ne se passe absolument rien ici il s'agit d'un procès entre deux Sénégalais yoo xamante ne décision de justice jot naa am ba pare léegi dañu interjeté appel bu nu demee ca booba ca waxtu ba war a toog ak tribunal bu booba sax danañu xam ndax atte dana mën a am man gawuma sax atte am tey parce que Ousmane Sonko délai bi ñu ko xam ne dañ ko ko imparti délai boobu jeexagul pour cette toute bonne et simple raison que war naa mën a jóge këram barrage du fa am dara du xew parce que liy créer tension mooy nga teg auto police yu ñuul kukk teg ay nit ñoo xamante ne danoo sol seen yëre armé jusqu'aux dents bu boobaa ñu ne ñit ñi kat dafa am lu fi xew mais bu fekkente da nga bàyyi ñi ñuy circuler librement jaar itinéraire bu mu bëgg jaar dem wuy ji tribunal delluwaat ñibbi këram Sénégal dara du fi xew les gens sont préoccupés par autre chose croyez-moi li nga xam ne mooy sunu yitte réew soxal nanu de mais dafa di contexte bu nekk nabu ak la cay xew te contexte bii nu toll nii nit ñi xam nga lu nu tal korité bii nuñ koo lijjantee mu seer te nag ba fii ñu toog nii gisaguma benn sénégalais laa wax bu weesu ñi nga xamante ne ay borom yi doole lan am nanu alal ñoo xam ne seen korité jekk ñun ñii ñëpp toog nii yëpp kenn ku ci nekk c'est la même question que tu te poses mm-hmm. julli gi nan laay def ba ñawal samay doom nan laay def ba am lu ma lekk ak lu ma naan nan laay def ba mën a lijjanti nan laay def ba mën a faj aajo ci réew moo xam ne pas seen nenn kilo banaana 1200 lay jar waaye may leen ni sunu jàmm dara xew fii ah. tey banaana boobu banaana bi <laughs> da ko gëj lekk de <laughs> merci beaucoup alors ñu dem ci beneen fonk bi nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee Idrissa Seck face à Benno ça va barder ginnaaw euh, sortie bi.